del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar yu leer ci people sport politique Feeling Dakar yaa ngi Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. nit lii rek lay doyee nit boo su xewlee nga ñëw aussi ko te Eva ci ñun la bokk lu ñu xewle da ngeen ko ci gis ñu liggéey ensemble bokk ñu bari mu nekk ci aar ñu nekk ci aar donc c'est une famille quoi bu xewlee lii su mu mënti nekk bu ko suñu temps mayee dañuy ñëw fekk si ko quoi mais loolu àdduna moo mel noonu àdduna gis nga boo nekkee ci àdduna da problème boo nekkee ay nit ci àdduna da nga am problème ak ñoom donc euh, ñoom c'est des femmes suñu ay sœur la ñu ah may wax ni rek yàlla yàlla sàmmat leen boolewaat leen seen ànd bi que gis nga ay ñu àndee bu xëyee suba problème am ci comme yow man comme ak keneen ñëpp am ñi ànd ñëpp yàlla na yàlla sàmmat leen man nag dama bëgg lu rafet rafet ba lu ñaaw li may mën a tooñ bu lu ñaaw amee ay saaga am wala wax lu ñaaw am rek man du ma ci bëgg sax tooñ parce que man bëgguma loolu man bu méttee rek wala mu xaw a kii rek man duma ci wax mais damay ne ñaanal yal na yàlla sàmmat leen yàlla indiwaat leen ñu àndaat quoi parce que ànd waaw waaw yow man ci man rek euh, ñoom ñaar ñëpp je pense que du ma wax sax ñoom ñaar ñu xuloon ñëpp je pense que en 2024 bi euh, li ëpp ci sama projet moo ñu am problème ma jubale leen waaw damay bàyyi yëf seytaane yi bàyyi yooyu yëpp léegi damay option bu bees mooy abaa bu bees ñu am problème ma leen di wër xam <laughs> naa waxee kenn du ma gëm <laughs> di leen digal ñëpp nag. mais am na benn vidéo bu viral ci réseaux sociaux yi mooy vidéo bi ñu gis da ngay filmé Mouhamed Balla Diop ci xolam. waaw seen diggante yàlla seen diggante yàlla seen diggante yàlla yéen bi ngeen gisee loolu ci man da ngeen am leen bett bett leen xam ngeen ma <laughs> <laughs> non non indi ma ko xam nga man maa ngi yéen a yem. ci euh, réseaux sociaux lañ nekk ñun ñëpp dañuy xëy rek daal di benn affaire moom la ñuy indiwaat di koy def parce que ci xel lay nekk te comme Abba animateur la et que damay animer réew mi man réew mi damay xëy rek di ko animer damay xool loo xam ne suma ko defee ren saa am loo xam ne sama yoon du ci nekk kenn du ma ci wax sama tur kenn du ma ci tudd kenn ma ci taas mais pour ren damaa aw ma jom ba pare dama bëgg ay coow may xëy rek dugg ci. <laughs> <laughs> Euh, Liberté 6 ñu gis ni dañ ko tudd son excellence euh, Bassirou Diomaye Faye ñu xam ne na nga tëdd yi booy Pastef yi la booy Pastef nañu xam ni son excellence le président de la république nekkatul chef de parti c'est le président de tous les sénégalais mu tuddee ko sama ndog yi may def bu subaa ca campénal benn la ci bu ma ko tuddee booy nañu xaar ne match football dinaa ko ko tuddee réunion de famille dinaa ko xutu mais c'est notre président à nous tous c'est juste nag loolu mooy leen wan ni eh, Sénégal ay foo ay reetaan man bi ma nee du ma wax ci lu jëm ci wàllu politique am na ay nit ñu ci dee politique am na ay ñu ci xuloo am ay magal rek yu ci bàyyante man du ma wax ci luy tàqali man luy rassembler luy boole rek laay wax maay wax ci sport bi maay wax ci la lutte maay wax ci hip hop bi maay wax ci même ba ci ma ma gi ma génn ci mbedd mi ma màggal mais man bu ñaawee rek wala mu am ay ay vulgarité wala insolence man du ma ci bëgg wax parce que nit ñëpp la et que laa bëgg ñëpp ma bëgg foo far rek te man passé fu may fu may nekk di far ci kii wala ci kële parce que politique apporté dara partenaire yi may am dem leen ngeen xool samay plateforme amul ci partenaire buy jëm ci politique donc wax ci politique man lay neex rek wala ma wala ma bañ maa neex mais xaaruma leen ci dara donc may ñaan rek nguur gu bees gi nañu bàyyiwaat xel xale yi leen fi teg ñu dimbaliwaat leen te ñoom it waa xale xam ne réew mi ñun ñoo kenn moomu ko Pape kenn moomu ko waaw. génn naa wax li ma génn wax kenn génn ko wax génn naa wax li ma wax a wul génn na wax sama génn wax mënul rëy mënu ma wax li la neex yow wala wax li keneen bëgg li may wax mooy yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm autorité yi. yi nekk pouvoir ak yi nekk opposition nañu yërëm réew mi bàyyi seen intérêt personnel te xool intérêt réew mi bëggatuñu gis benn ndaw bu dee doomu politicien deewul doomu ko am xaalis deewul doomu pauvre ñooy dee def naa ci vingt vidéo damay xool samay plateforme vingt vingt mani vingt. vingt waa vingt waaye Abba balaa ñu jeexal ku ne xam ne influenceur nga min nañ la si TikTok suñu waxee TikTok nag xam ne site de divertissement la su demee ba toll foo xamante ne nit ñi dañ koy utiliser pour ay wax yu ñaaw wala ay defante mu dem ba sénégalais yi si boppam naan dañu war def pétition pour tëj li nga xamante ne moom mooy TikTok te yeneen réew yi di ci jëriñu di ci liggéey naka nga ko gisee. non kenn du ko parce que mooy plateforme plateforme yu ne am na utilité yoo xam ne dañ koy jëriñ euh, dañ koy utiliser pour seen liggéey am na ñoo xam dañ koy utiliser pour yeneen ak yeneen xam nga tey mënu ma toog fii en yaa war a wax ba nga wax ba tooñ nit wala nga wax ba wax loo xam sa yoon nekku ci tamit yow yaay tooñ man damay bëgg chaque fois su may wax mu nekk loo xam man la concerné man samay plateforme dama ciy fo dama ci liggéey damay fexe nit ñi di ci bëgg ci kaw yéen bëgg ngeen ciy bëgg ma ci profité di ci wut xaalis mais man du ma ci guerre ma ci xuloo man abaa la ñuy saaga du ma tontu ma dugg ci commentaire yi ma reetaan ma kaf parce que Aba xaaruñu ko mind is slogan no stress man je pense que nit ñi dañoo war am problème ma kontaan loo leen mais man du nekkuma fi pour mer wala di wax ñaar ñi ak ñaar ñee ku fi xuloo ma ruube la mais ku fi xuloo saagante wala ñu ñu xastante wala ñu laal seen ay famille wala ay yooyu du ma ci wax parce que tamit ku mu nekkoon ci ñun ku ci nekk ci ñun sa kër bi nga dëkk am na fa ñu am problème même bu dee ci internet ngay liggéey doo dem interview seen waa kër yéen boo ko def bàyyi leen ñuy làq ñun suñu ay yu bon ay yëfi yu bon nit ñu koy génne di ko exposé loolu il faut ñu arrêté ko. mais ñi nga xamante ne ñoom seen yu bon ñëw ci réseaux sociaux yi def ko fa def ko fa taaj tamit. mag naa mag bu tool ni man Aba damay romb sa yu bon man yu baax rek laay xool lu baax rek laay def lu baax rek laay wax man yu bon yooyu dama koy romb du ma ko xool waaw. si. mu ngi kan la ci. Youssou waaw waaw waaw mu ngi fi mu ngi këram <laughs> ah yow man maay man staff Youssou laa bokk wala maay ménage doo dem nga laaj ko.

am na numéro ñëpp ma ne am na numéro ñëpp critique yi ñu critiqué Viviane nag ne ne mérito wu ko wala deful dara ci réew mi e ci compte yi nga xamante ne def na ko moom propre publication bu mu def Instagram gis nga commentaire yi gars yi ne lan la fi def bañ jox ko bañ bañ décoré ko mérito wu am na ñeneen ñu koy gis-gis nga am ci gis nga Sénégal kuñ critiqué wul ñëpp la ñuy donc te ku def lu baax rek wala ku nekk ci kanam rek la ñuy critiquer du ma ci tontu. mais man nag xam nga nag man du ma nit ku am noonu solo noonu man awma benn solo man nañ ma bàyyi réew mi ak waa réew mi may kaf ak ñoom di reetaan ak ñoom donc je pense woowoon nañ ma fa ma dem fa c'était en deux mille dix-huit Euh, mu rendre ñu hommage ñun ñëpp donc bu woote waatee ñun soxla la woo mais tamit ah mais tamit mais tamit ñun ñu ngi ñun daal ñu ngi fi ñu ngi ci réew mi et je pense que lu jot yomb et que ku ñu war a woo rek dinañu woo euh, pourquoi pas euh, son excellence président Diomaye wooñ <laughs> ah yaa ma ko wax ah. yow yaa ko wax donc bu fekkee li nga wax am na parce que tamit dañuy bind loo xam ne parfois doo xam yàlla na yàlla indiwaat leen seen kër yi ñu nekk ci jàmm mais yow ko wax. loolu comportement am la loolu comportement am la moom man sama comportement laay xool. man bu bu weesoo ay tooñ ak ay kafage viwu nit moom du ma ci wax. kan man Pape Cheikh benn la wax am naa ci cinq. Eh, balaa ñuy jeexal ba ñu balaa ñuy jeexal dañu question. bu leen jeexalee bu leen ah, am naa taa. Ah, initiative ah, nañ ne influenceurs jël nañ ko organiser ay kaay ndogu yu bëree bëree bëri bëri muy lu affaire loo xamante ne ñu ko ay jeunes lañ nga gis ñu décentraliser ko yow tamit gis nañ ne que ren yokk nga sa loxo def nga defaat di waajalaat nga dóor bi. mooy suñu cinquième année jaari mii sama doom la xam na li wax donc influenceurs yi yaa ngi laaj laaj bu am solo. damay bëgg genre laaj yu mel nii dañu bëgg hommage ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay followers dañ leen di delloo njukkal bi nga xam ne moom la ñu jox ñoo ñu topp ñoo ñuy suivre ñoo ñuy def tey lu ñu doon donc tey bu yàlla di indi ay xéewal comme li Bébé Eva def ak li keneen ak keneen def mooy dañ leen koy delloowaat ñoom tey fii ñu nekk nii leer na ni nga xam kook nga bañ koo xam am na ñaari kër wala ñett yoo xam ne amuñu lu ñu ndogoo tey ñu dem yëmbal wala ñu dem ci prison yi wala ñu dem ci hôpitaux yi dafa am ñu feebar ñu fa nekk am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw donc yooyu ay xeetu delloo naar bi xaw ma lan la waaw fay naar bi xoromam la yooyu la ñuy def ñun ñun ci yooyu la ñuy xaar ci yu baax ci ay def ay gestes yu rafet moo tax ñuy xuloo ak di xeex ci internet bi ak ci tiktok bi man sa ñaaleen ñaan ah du ma yedd kenn mais sa sa ñaaleen a ñaan ñu xam dafa am nit ñu leen bëgg ay xale ay góor ay jigéen ay kilifa donc ñu gën ci bàyyiwaat xel loolu ku la tooñ mën nga ko baal wala looy réglé na ko réglé en privé maa gëna a pànk ñëpp ku ma xam man xam ne maa gën a pànk maa ëpp histoire mais plateforme yi du pour lijjanti ay compte ñi ci nekk di seetaan dañuy bëgg nga leen di égayer nga leen di kaf di reetaanloo waaye man ku dox ci mbedd boo dajee man boo ma waxee loo ma war xam ni wax ko ko ko war a wax mais plateforme yi du foofu. waaw waaw ma koy tuddee rek président bu bees moom ci li ñu mën a xaar Aba sous le patronage de son excellence Alaaji Basiru Jomaay ja Ñaaxar Fay hmm. kilifa kilifa la gis nga président wak njiit du ku neex koy nekk yàllaay xool ku ko neex mu def ko ko xam man lan moo tax ma ni man du ma opposé ma mer du ma kaas du ma kii parce que dafa am yoo xam ku ko nangu nangu nga dogalu yàlla ku ci nekk sañ nga activiste bi mu ngi ci droit am tey ki nga xam ne day def politique mu ngi ci droit man bugguma politique du ma def politique du tey du suba du ginnaaw suba wóoruma nag suba la yàlla def mais pour le moment du ma wax ci politique parce que apporter lu ma dara suma ma ciy wax dama leen di ñaan ñu dimbali la jeunesse alhamdulilah je touche du bois ci banlieue bi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee lu ma doon banlieue bi ma ko def mais maa ngi sant yàlla ba xaaruma ci politicien dara mais nag sañ ne leen nañu dimbali xale yu ci ginnaaw ñi may àndal ku leen dimbali man nga dimbali parce que boo ma dimbalee ñoom laay dimbali donc boo ma fi jéggee nga dimbali leen ñoom dama naan alhamdulilahi rabbil alamin foofu lañ leen xaar mais aba buy kaf naan son excellence président ay parrainage yooyu xaaruma ci président ci keneen dara man maa ngi maa ngi ci lijjanti sama bopp maa ngi ciy génn maa ngi ciy génn geneen ak geneen te président ñëwul gouvernement ñëwul donc dañuy kaf rek quoi dañuy ambiance rek man moom mu ne maa teye toog muy wax